comme pays bi nga xam ni am na tradition démocratique élection législative yi ñu génn gis ngeen li xew mooy élection yi gën a bon yi Sénégal organisé bi mu amee indépendance am ba tey li ñuy xaar ci moom nag comme premier acte mooy mu def li président Abdoulaye Wade defoon en 2011 def li président Abdou Diouf defoon en 2000 maanaam wut personnalité neutre et indépendante bu organiser élection yi li ñuy xaar ci moom tamit mooy deux millions cinq cent mille sénégalais yi à trois millions yi nga xam ne jotaguñ seen carte nationale d'identité ba tey ak seen carte d'électeur ñooñu mën a jot seen carte beneen mbir mi mooy même ñi jot a jot seen carte ci élection législative yi dañu dem seen bureau de vote ñu bind ci seen biir kart yi ñu dem foofu fekk ñu seen tur ci fichier yi sénégalais yooyu ñu bëgg xam ban sort lan leen réserver loolu lépp di wane ni président de la république Macky Sall nekkul ci yoonu organiser élection yu libre et transparente loolu nag mënuñu ko nangu ci Sénégal fii mu toll moo tax ñu tey jii nii ñu ñëw di